salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun rawatina ci seen site Touba Info noo ngi leen di nuyu di leen jaar di am mbégte di taxaw fii nga xam ne euh, bu duñu fi rus taxaw ci ngeen jàkkaarloo ak image bi te mu jëm ci naatal Touba te loolu daayira nooru daaree nii Touba ca kanam mu doon ab comp ci ab liggéeyam ginnaaw boo xamee ne gis na ne. seriñ Touba moo ñaanal boromam subhaanahu wa taala ci dëkkam bii di Touba mu nuroog turam wa nekk àjjana mislas miha bi jaahi xayri man abad waaw waccal ilaahi maskani tuuba abad mislas miha loolu yaakaar naa ne mooy mooy bàkku Touba ca kanam lépp loo xam ne day tax Touba nuroo ak turandoom wa nekk ci àjjana sëñ Touba ñaan na ko te sëñ Touba du ñaan lu jomb personnalité ak euh, xamam gum xam yàlla jomb na ñaan yàlla loo xam ne day le ba xam dana am wala du am lum ñaan yàlla rek loo am ba noppi ah tey te nii jamia duuna sale bi wala taqudu su la waxta tale bi kon li ci des mooy sabab lu doomu ndax malaayika yi duñ wàcc jinne yi duñ wàcc waaye bu doomu aadama fu yitteem yem rek moo fa yemale boppam ku ne xamul ne ne sëñ Tuba te eh, yoon wi yoonu yitte la alhimma kon doomu aadama dafa war a kaweel yitteem kawe Touba population Touba murit si Touba sëñ Touba yi defalal sëñ Touba dëkkam bi ba mu nuroog turam ndaw ma ca àjjana loolu nag lii bokk na ci mooy naatal yoon wi nga xam ne moo jëm Touba kon projet naatal Touba yaakaar naa ne eh, Touba ci kanam du wax lum nar a def day day day wax lum def ba noppi waaye du wax ne damaa bëgg a def nangam déedéet damay def nangam la nga xam ne fi mu la koy waxee ak fi mu koy defee benn lay doon résultat bi day ànd communication bi loolu nag kon projet bi yaakaar naa ne képp koo xam ne yaa ngi Touba. wala yaa ngi gis Touba te amoon yéene Touba nuroog turandoom woowa xam nga ne digg bi lañ jël mu di tàndarma waaye wet yi lu ci nekk war naa am ay garab su ko defee eh, ñetti ñetti fànn yëpp boo ci xool dëkk bi day wert te loolu ci ñeenti xeeb la yëpp la ko Touba ci kanam bëgg kon murit yi mi ngi nii acca murit la du liggéey boo xam ne dañ naan nangam acca murit la rek kenn ku ne xoolal sa bopp daal ci sa xol lu la sëñ Touba jaral ak noo bëgg Touba mel ni nga ànd koog Touba ci kanam ñoo ngi leen di sant di leen eh, li ci di njëriñ garab tur rek doy na nit bu feebaree garab koy faj nit bu feebaree ak feebar bu mu mën a doon garab koy faj te ci biir garab yi lañ koy jëlee ñaareel bi xoolal naaj wu tàng wi ngay xool lan moo tax sa bët di miti mooy amut lenn lu wert lu la baare te naaj da ko li koy casé lu wert bokk na ci kan nattablu na fi ne nawet bi ni nga mën a xoolee asamaan si mooy xiin wi muy jant bi wàññeeku lii nag daa bokk ci li nga xam ne day protéger naaj woowu bokk na ci njëriñam itam kenn nattablu ne désert bi jóge Murtani Touba la gën a jege ndax Touba fi mu nekk Mourtani la gën a jege ca deseeru Mourtani bi li muy daw ci ay kilomètres ka xen xamul nu muy toll boo génnee Louga rek li topp noonu jëm ginnaaw lépp gisatoo fi garab te Touba amul géej amul dex kon lan moo mën a protéger désert boobu mooy garab garab moo ko mën a protéger bu agsi bokk na ci itam li tax taw kenn bi ne ren yéex naa taw ba àgg ci lool bokk na ci eh, li tax taw di manqué mooy garab yi ñuy dagg loolu nag fexe ba garab gii ñu fi jëmbat du man këriñ du man matt te ba noppi day am njëriñ loolu mooy mooy importance bi boo defee garab gu am këriñ bu yàggee dañ koy dagg def ko këriñ bu dee gu man mat bu yàggee ñu def ko mat da ngay jëmbat garab goo xam ne day am njariñ te du man matt du am këriñ xam nga këriñ mat matt doo nga du njariñ fur wi njariñ la waaye garab gi mënut këriñ mënut mat moo tax garab yi Touba ci kanam cité di ko fi def njariñ li foo ko takk weesu na ko xanaa daal beneen bi may lancé mooy ñu fexe ba borom bëy yi borom nag yi sàmm yi ñu xam ne lii seen moroomi murit ñoo ko fi def seen moroomi jullit ñoo ko fi def te njariñul dëkk bépp la ñoo bañ a seet seen intérêt bopp ba yàqal murid yi benn njariñ man dama am na ma ne ku dàq saw béy ba mu lekk ci benn ma ne la wóor ne buddi nga sa sa sa garab ci àjjana loolu moom nattabli wu ma ko ndax tuuba lii garab yi moom garab yu nekk àjjana rek la kon nag ku sàggan ba saw béy lekk ci wala saw nag buddi sa genn garab wala garab gun jëmbataloon sëñ Tuubaa ci àjjana yow yaa ko buddi sànni